wa sallallahu wasallam ala seydi wujudi wa alimi suhudi seydi lawalina wal axiri wa ala alihi wa xulafaihi wa man ittabahuda ila yawmi din ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di leen wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah yàlla dogal na nag tey ñëw ngeen fii ci Daar Salaam muy dëkk boo xam ne eh, suñu maam Cheikh Seydi Laaji Ndaw moo fàkk dëkk bi tuddee ko Daaru Salaam muy dëkku diina muy dëkku lislaam muy dëkk boo xam ne dëkku jaamukatu yàlla la e, dëkk la boo xam ne fa tabaarakallaahu xamuñ leen lu mooy yàlla ak rasulullahi ci leen sëñ bi yar njabootam gi ci la si yar mbooleem kuy xaju ci moom su ko defee nag ah, yow Omar ñu ngi lay nuyu di la wax bisimilah di la wax itam ñu ngi lay dalal ci Daaru Salaam ñëw ngi foo xam ne fi nga dëkk fi nga bokk fi nga juddoo dëkk boo xam ne wax dëgg yàlla ku xam ku xam ku xam ah, alaaji alaaji xaalis yéen xam surtout bajaan foo nga xam kan ma alaaji Gumba Siise Alaaji Gumba Cissé nag ah, wax dëgg yàlla eh, suñu xarit la suñu baay la suñu wëlër la suñu mag la suñu lépp la yàlla boole ko ñun mu nekkoon koo xam ne mu nekk koo xam ne taxawaayam ci Daaru Salaam ñun taalibe yi ak njaboot gi yëpp xam nañ taxawaayam bi nga xam ne taxaw na ko ci kër Alaaji Omar Ndaw defal nañu loo xam ne sigil nañu ci kër Alaaji Omar Ndaw jàppale ñu ci kër Alaaji Omar Ndaw sagal ñu ba nga xam ne lépp loo xam ne doomu soxna am na ko yaakaar naa moom ci ñun sori na ci sori goo xam ne foo naa ne taalibe yëpp ñu ngi koy sagoo di ko bégee di ko ñaanal yàlla may ko fan may ko wér may ko kattan ñu toogee nag tey ba doomam Omar mi nga xam ne nii doomu alaaj gumbala ah, ñëw fii ci saalu alaaji Mourou Moustapha Mansour ñu ngi si gën a siiw ci alaaji Mourou Ndaw ah muy suma wëllëre di sama rakk di sama jarbaat di sama doom di sama lépp yàlla boole ko man ah mu ñëw ba ne dafa bëgg kër gi maanaam commune Darou Salam bi la soxla ah ñun dañ ci sawar ndax ñun wax dëgg yàlla koo xam ne mën nga liggéey commune bi man a yëkkati Daaru Salaam mën a yëkkati commune bi mën a yëkkati département bi ñun lépp loo xam ne luy sagal kër gi Alaaji Omar Ndaw ci la ñuy dox ak lu koy siiwal ak lu koy darajal guddee bëccëg ci la ñuy fanaan kon suñu gisee koo xam ne nii moom tam ci kër gi la bokk di doomu kër gi a ah ñëw fi tey pour tàgguñu tàggu sëriñ bi ñaan yàlla ñu ñaanal ko yàlla li muy wut mu am ko a ah loolu dañ ci sant yàlla ndax si njaboot la ndax yàlla boole ñoo ko ñun boole koo xam ne yàgg nañ ba dem ba nga xam ne sax yàlla séq nañ soxna may may nañ ko soxna loolu yaakaar mënu ko romb te loolu dimbaloon du tey ndax jikko ju ngi si moom mooy jikkoy taalibe jikko joo xam ne ni ku yiw la ku dal ku am sago ku xam te njub tam am yaakaar lool te nin la koo xam ne wax dëgg yàlla man ba ma xamee léegi yàgg na lool ndax yàlla ku fonk tariqa bi la ku fonk lim ne la bëgg ko lool te yaatu na gannaaw te nit la koo xam ne wax dëgg yàlla xol bi yaatu na nit nag bu xolam yaatoo ragal naa ne dana mën a boot lu bare bare bare moo tax ñu moom yaakaar moom nag ma fi ñëw ne dafa bëgg commune bi yaakaar ko ñu am ci am yaakaar ci kër gi am yaakaar ci taalib bi am yaakaar ci gox bi am yaakaar ci commune bi bu ko defee nag loolu bu ñu ko bu ñu ko waxee ñun dañ ci am sawarte lool kontaan ci trop di ko ñaan yàlla di ñaan ci commune Darou Salam ak département bi région Kaolack yal na yàlla yëkkati ko ba ca kaw a kaw a kaw lépp lu mu fi bëgg itam yàlla ko mën a joxe yàlla moo koy joxe yal na yàlla jox ko ko waaw ndax njaboot la rakk la gerbaat la doom la lépp la ci kër gi kooku nag fa tabaarakallaahu ñun am nañ ci moom yaakaar pour pour ñaanal ko yàlla pour mu taxaw ci commune bi ni mu ko bëggee yàlla mi ko mën a joxe yàlla na ko jox ndax wax dëgg yàlla commune Darou Salam ñi ko seq dafa bari ay taalibe ak ay julit ay bokk ay bokk yoo xam ne ñëpp benn lañ lu baax lañ bëgg te ñun ñëpp benn lañ kër gi yëpp genn kër la wa tabaarakallaahu sañu ma ndaw doon jaboot yàlla boole ko ñu baree bare ci ci commune bi ñu bokk ak ñoom ak département bi jàmm lañ seq du taddu du question pour affaire tariqa waaye ñoo bokk l'islam bi nga xam ne mooy kalimatu laa ilaaha illa muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa te li gën a am solo mooy li nga bokk nga mën koy rafetal mu gën a taaru ci taaru boo xam ne fa tabaarakallaahu ku ko gis amul loo mën a sikk ci dara loolu nag ku mel noonu nag bu ñu ko yaree ci yarin woowu lépp lu mu jiite loolu yaakaar la am nañ ci moom yaakaar daal yaakaar jooju yàlla na yàlla matal ko sottal ko ci xormay yonent bi xormay Cheikh Laaji Ba Ndaw xormay Seydi Moon Mansour wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp dañoo ñëwoon Daaru Salaam si dëkk bu tedd bi dëkku suñu Alaaji Omar Ndaw ñëw seet si sëriñ bi sëñ Basiiru Ndaw ak ay rakkam yëpp yàlla yàggal leen fi lool ñu ànd ak wér ñu ngi seet aussi suñu kilifa El Hadji Ndaw di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi lool wér di nuyu aussi ñu ñu ànd ak yëpp délégation bu ñu àndal Aliou Cissé Ngañ Fay Pam Mbow ak Modou ñoom ñëpp ñu leen nuyu ñun nag suñu tànk euh, tey lenn la dañoo bëgg dugg si politique bëgg ko commencé ñu ne nag balaa ñuy commencé nañ ñëw tàgg suñu kilifa yi suñu sëriñ si tàggu leen yëgal leen sàkk su ñaan ginnaaw si bañ tàggoo suñu waajur bu góor Moustapha Goumba Cissé mu jox ñu feu vert nañu mun leen dem kontaan si lool sax waaw loolu daal moo ñu fi indi luy suñu tànk nag mooy fexe jël commune Darou Salam bi def si lu ñu war def si lu ñu war mooy fexe ba commune bi avancé fexe ba jeunes yu fi nekk am si lu ñu jàpp fexe ba jigéen ñu fi nekk am si lu ñu jàpp loolu daal moo ñu fi indi jàppale gox bi jàppale population bi yëpp incha allah rabbi loolu daal moo nekkoon suñu tànk donc suñu wax du si bari noonu donc pour l'instant daal loolu la ñuy commencé donc tey loolu rek mooy suñu kii bu ñu fi jógee incha allah rabbi dinañ dem Touba Saloum dem seeti sëriñ bi moom itam tàggu ko sàkku si moom ñaan après incha allah rabi ñu retourné léegi nag après incha allah rabi dinañ xool lan la ñuy commencé suñu stratégie affaire yooyu xool lan la ñuy commencé continuer suñu politique si commune bi bu neex yàlla. Euh, asalaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu ñëpp di jiital si nuyoo bi euh, sëñ bi seen Bas sëñ Basiru Ndaw ak ay rakkam yëpp di nuyu El moo Ndaw doon ko xam ne kilifa si ñun la te mu yàgg ak ñun waaye ñu ngi nuyu 63 villages yëpp yu commune bu Darou Salaam. dina xamal ne tey euh, dañu am gan gan gi mooy kan mooy Omar Cissé doomu El Hadj Goumba Cissé mën naa ko ñàkk présenté sax si doomu El Hadj Goumba ndax olof dafa ne maay doomu diw ak diw raakal nga fexeel doon diw donc euh, El Hadj Goumba jaar na fi si département bu Nioro plus particulièrement dans la commune de Darou Salam waaye mu ji fi loo xam ne lii tranga la lu am solo kon su doomam ñëwee dinañu am si moom yaakaar donc euh, dañ ànd ak doomam muy Omar Cissé Euh, fas yéene teg suñ tànk fa papam tegoon tànkam euh, fas yéene digaale ak askan wi si ngor ak tranga ak jom moom la Omar Cissé bëgg a àndee ak commune bu Darou Salaam waaye ñu tàllal suñ loxo yëpp si ginnaaw bu ñu sëñ bi joxe ndigal ndax dañ ñëw pour tàggu sëñ bi ñëwuñ pour yëgal si ko ndax mooy suñ lépp moom lañ yaakaar àddina ak alaxira donc kon dañ ñëw pour yëgal sëñ bi tàggu ko mu jox ñu digal suñu joxe ndigal ñu dugg si askan wi weccoonte ak ñoom xelaat Euh, Omar li mu ko soxal mooy ñëw am na xam-xam bi am na yéene ji am na yitte ji waaye askan wi rek ñoo joxe mu ñëw tàllal loxo askan wi ngir ñëw li nga xam ne mooy commune Darou Salaam euh, fi mu nekk ñu xeeb ko lool mu war ko yeggali foo xam ne fii askan wi euh, jeunesse bi jigéen ñi te ku wax développement jiital si góor maanaam ndaw ak jigéen mu fas yéene jàppale ñooñu ba kenn ku nekk gis sa bopp si biir commune bi donc ñu ngi tàllal loxo ñëpp te commencé nañ ko tey si bisimilahi rahmaani rahim te incha allahu de fas nañ yéene teg suñu tànk si 63 villages yi nekk si biir commune bi yëpp saafuwante ak ña fa nekk mag ñi jigéen ñi ndaw ñi tàllal leen seen loxo kon ñoo ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh

sa yaay ju tullu na yàccina ya sax ee eh, nooni dare ee eh, kuy mere na mere yàlla yow mbaa mu mere sa ku da bañ na bañ yàlla yow mbaa mu bañ sa baay sa baay ju rullu na yàtt na ya sax ee eh, nooni Yaya Gueye mairie bi mairie bi mairie la Gueye mairie bi tey la Gueye mairie bi mairie bi mairie bi mairie bi mairie la nar tey la Gueye Tyler Gate. aus billahi mina sheytaani rajim wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyatahaa mina sheytaani rajim rabbi auzu bika min hamazaati shayaatiini wa auzu bika rabbi an yahduruun asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bisu tey di samedi dañ doon def tournée politique ci këri diine yi Daaru village Omar Ndaw ak Touba li sabab tournée boobu nag mooy monsieur Omar Cissé moo doon relancer candidature am ci municipalité yi deux mille vingt deux ci commune Darou Salaam doon tàggu kilifa yi gox bi sëñ Basiru Ndaw ak rakkam ci Darou Salaam ak famille bi yëpp famille El Hadj Omar Ndaw bi yëpp ñu fa noppee dem Touba Saloum tàggu ji xalifa Touba Saloum yi sëñ Aliou Seck ak famille ba ñu fa jógee ko itam ziar nañ bërëbu sëñ ba sekk bi ba ñekkuwaat ñëw daaru salaam bés bi nag doon lu rëy lool ndax kii nga xamante ni bii mooy Omar Cissé bëgg commune daaru salaam nekk candidat ci commune bi ci élection législative municipale 2022 yi ñëw di doom ci honorable député monsieur Goumba Cissé bi nga xamante ni bii député libéral la foon ci jamono Abdoulaye Wade nga xam ne liggéey na fi lu rëy ci département bu Nioro bu ñëpp teg seen bët kon kooku doom bu taxawee ne soxla na commune Daaru Salaam lu mu yeeyoo la te xam-xamam matee na ko expérience am professionnel am aussi matee na ko yaram ak tegginam matee na ko kon kooku bu taxawee rek ñun dañ ci am kontante am ci engagement taxaw jàppale ko ci loolu ba mu réaliser bëgg-bëggam ndax ku ne xam na ne pour nekk maire de la commune dafa laaj ñetti yëf yoo war a dajee ci nit ki pour mu demander ko ba nit ñi mën a am ci moom confiance pour jox ko ko ñetti mbir yooyu mooy ki koy laaj war na am savoir mooy xam-xam bi beneen bi mooy war na am savoir faire mooy mën a def gi ça veut dire que ne war na am benn compétence professionnelle troisième point bi mooy war na am aussi savoir être savoir être bi mooy éducation de base boo xamante ne bii war na ko jox muy ñetti mbir yoo xamante ni bii su ci benn manqué rek nit ki du compétent pour diriger diriger commune wala pour dagaan baat pour nekk maire commune. te yàlla dogal na ne suñ candidat bii di Omar Cissé ñetti mbir yëpp dajee na ci moom am na savoir bi am na savoir faire am na savoir être ndaxte jàngi na comme ni ko ñëpp defee bi mu amee bac dem extérieur jàngi ji. am ay diplôme yu kawe yu ko tax a mën a nekk président de la république lu ko tax a mën a nekk lu ko mën a tax a nekk maire ku tax ma nekk député mu ñëw bi mu ñibbisee fonction yi muy liggéey rek ci état waroon bu ko fekkoon borom kese kuy tëloon mënoon na yem ci lool ndax am na lu mu lu mu dundalee famille am ça dire quoi bien-être familial waaye dafa ne su ma yemee ci loolu rek du ma gore ndax Daaru Salaam gi nga xamante ne bii fa dëkk war naa leen a mën a séddoog ñoom sama expérience professionnel sama relation yëpp war naa ko mën a séddoog ñoom te ni ma ko mënee mooy demande fa pour nekk le maire suñ ma joxee ma nekk maire Daaru Salaam su ko defee yéene ji maam ci ñoom man ko yeggale ndax ku tudd développement tudd jeune tudd femme ndax tey jii nii politique de développement ci ñaari yooyu noon ci la basé wu ñoom ñooy ñaari levier yi nga xamante ne bii soo ko rek réussir nga politique de développement bu Sénégal waaye réussir nga politique de développement bu commune bi yëpp ndax jeunesse bi ñoom ñu ak femmes yi ñooy levier développement te yooyu yàlla dogal na ne aussi am na ci ay projet yoo xamante ni bi yu leer yoo xamante ni bi mën na développer commune Darou ñun ci principe boobu ci la ñu àndee ak moom ndax xam nañ ne xam-xam baa fi macha allah waaye aussi les moyens yaa ngi fi mais deuxième troisièmement aussi relation baa fi ndax boo mënoo nekk maire bëgg a développer aussi te amoo ay partenaires amoo relation au niveau international et au niveau national également parce que boo bëggee jëf yenn jëf aussi yow doo ko mën waaye partenaires yi ñoo ci mën jàppale kon bon partenaire doo mën réaliser les projets à long terme donc ci base boobu ci lañ àndee moom waaw. lii nag bunt la boo xamante ni bii dana yóbbu sunu commune bi yëkkatli ko mu tolloo commune yi nga xamante ne bii ñoo gën a développé à l'échelle nationale loolu la ba tax na ñu ngi dagaan baatu askan bi yëpp commune Darou Salam bi les 63 villages. yi ko composé yëpp ñu ngi leen di woo que ne seen doom moo soxla ngeen jàppale ko pour mu réaliser bëgg-bëggam bëgg-bëggam di lenn lu dul le développement durable de la commune de Darou Salam loolu kese mooy objectif principalu Omar Cissé ci commune Darou Salam donc ñu ngi je lance un appel solennel maa ngi woo jeunesse bi yëpp ak jigéen ñeeg kilifa yëpp ñu jàppale seen doom pour mu mën a développer ensemble ñu développer la commune de de Darou Salam ñun nag suñ politique nekkul politique gu xastante politique gu wax ay waxi kasaw kasaw mais politique de développement ci loolu la ñuy lañ teg suñ projet bi te bëgg aussi jeunesse bi porter combat boobu noonu porter projet bi ba nga xamante ni bi dañ réaliser sunu bëgg-bëgg boobu en grosso modo daal loolu laa doon wax te itam ñu ànd ak délégation boo xamante ni bi ay composé de de personnes yoo xamante ñu expérimenté yu xam politique yàgg ci terrain bi nga xamante ñu daan ànd ak son di honorable député Moustapha Koumba Cissé ñu daan liggéey ndoo ak moom ku mel ni la coordonnateur départemental monsieur ngañ fay nekk sama wet monsieur Omar monsieur Aliou Cissé également nga xamante bi moo nekkoon bras droit pa bi ci département bi yëpp donc ñu ànd ak ñooñu ànd ak euh, kilifay Daaru Salaam yëpp ci ci tournée bi ànd ak aussi également sunu réalisateur di Modou Khoule jóge ko ba Dakar ñëw pour couvrir événement bi ak sun mbokk yi Daaru Salaam yeeg yëpp jeunesse beeg ñëpp ànd ci pour la réussite vraiment de la journée di sant bu baax a baax aussi euh, marabu yi ndax vraiment gis nañ seen taxawaay kuñ ko ci wax rek pour ta ci tàggu leen rek ku ci nekk rek da nga da nga ci contentement boo xamante ni bii kenn xamut fu mu fu mu toll kenn mënu ko natt bëgg nañ ci lool kontaan vraiment ci ci ci ci affaire bi bég lool ne lii dañ ko yéex a def ñaanal nañ Omar ñaan goo xamante ni bi macha allah vraiment bëgg nañ ci bu baax Serigne Sepp le xalif général euh, de Darou Salaam ñaanal na ko ñaan yu am solo Baye Habib ñoom ñëpp vraiment Baye Tahir Darou Salaam moom Serigne si fi nekk yëpp boo cité ñetti ñooñu rek yóbbaale nga waa dëkk bi yëpp jeunesse bi ñëpp kontaan nañ ci ci Omar dugg si gi mu dugg si politique bi kontaan nañ ci euh, jàppale nañ ko te vraiment ñu ngi koy encouragé aussi fas nañ aussi taxaw. pour porter combat bi porter projet bi ba mu réussir incha allahu rabbi jeunesse beeg jigéen ñeeg kilifa diine yëpp taxaw nañ ci commune ci dëkk commune de Sam pour jàppale ko vraiment kontaan nañ ci bu baax. di remercier aussi les marabouts de Touba Saloum sëñ Cheikh Aliou Seck mi nga xam ne mooy xalif général bi rek boo ko tuddee itam Touba Sam tudd nga ñëpp dem nañ fa moom tamit mu accueillir ñu vraiment kontaan trop ci lii. comme ni waa Daaru Salaam kontaanee sëriñ si yëpp kontaan moom tam noonu ci kontaanee kontaan nañ ci projet bi ñaanal nañ Omar vraiment pour mu jiite commune Daaru Salaam bi. ñaan nañ ko sax pour mu mu am yenn doomba tànk yu gën a kawe meeru Daaru Salaam kon vraiment loolu fierté la te loolu aussi li doon xaar ci ñoom ñoom leen ñor ci dëkk bi rek commune bi mooy ñu développé commune bi projet développement moo leen ci ñor te loolu lañ gis ci Omar am ci moom yaakaar ju rëy ñun tamit ñuy ñaan yaakaar jooju ñu am ci Omar yàlla bu mu tas ci ba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar jooju yàlla bu ko yàlla tas yàlla ñu ci yàlla may ndam ba nga xamante ni bii suñu demee ci élection municipale yu 2022 yi ñu ne Omar Cissé élu maire de la commune de Darou Salam ko defee nag ñu xam ne ni ñu àndandoo vraiment développe sunu commune ba yóbbu ko à l' assemblée nationale comme ni fa yóbboon papaam ba mu am yeneen ni fauteuil yu gën a kawe yooyu ci bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di remercier gars yëpp ngir